lépp du mat bu noppee ànd leeralaat ko kon sëriñ si di nii ko sëriñ Abdul Ahad Ka waxee rek noonu la deme moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha nag santoon ma ne naa jot li mboolem yéen ñi nga xam ne yéenee chef de village ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi ndigal yi mu leen di bëgg a sant ne dafa bëgg ñépp maase ci xam ne fii mu toog di jataayu Serigne Touba yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo ko tànn teg ko fi te suñu borom wax ci alxuraan ne allahu ahlamu haythu yaj'alu risalatihi muy bëgg-bëggu Serigne Touba itam ndax képp ku fi toog rek Serigne Touba seet na seet na ko tànn ko ba mate ko mu teg ko fi nee na li mu fas yéene nag di ko xamal bokk taalib yëpp ak bokk jullit yëpp mooy ne dëkk bi sëriñ Touba da ko ñaan suñu borom ba suñu borom may ko ko. muy dëkk boo xam ne yàlla def na ci histoire ci taarix kenn mës sa fàttaliku fu ko nit moome kon muy lu ko suñu borom dencaloon ba di taw fee xam ju ba yàlla def suñu boroom jox ko ko nee na Serigne Touba ñaan fi mboolem li bëgg ci dëkk bi danaa ci dellu siwaat lépp suñu borom bay ko ko nee na ba sëriñ Touba ñibbisi Touba bi sëriñ bi ñibbisee nag. mboolem njëkk fi masa wutu ñëpp tàmbalee ci ci ko fi jëkk wutu di al cheikh Mouhamadou jaar ci cheikh Mouhamadou Fadil jaar ci al cheikh Abdoul Ahad jaar ci al cheikh Abdoul Khadir jaar ci al cheikh Salihu Mbacké jaar ci cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ba jaar ci al cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ba yàlla def moom mii lépp ndénkaan di nekk ci loxoom nee na nag fas na yéene li ko ci war mooy na ñu jëkk ñi daa defee mooy wattu ak sàmm lépp loo xam ne jëm na ci dëkk bi mu fas yéene ko wattu sàmm ko ngir xam ne ndénkaan wu Serigne Touba la ndénkaan wu Serigne nag nee na képp ku muy àndal dëgg lay ànd ak yow kunu ma mahal xaqi mahma kallafakumul amru moo tax waxam ji ji mu weesu yéen ñëpp ko déggandoo loolu rek la wax naa ko fàttali ci biir fàttali gi itam muy digal ñi nga xam ne yéene chef de village yi tàmbalee ko ci délégué délégué de yi ne ci suuf ngeen xam ne dëkk bi Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu koy def ab village ci turam danaa nekk ku fi nekkal Serigne Touba ba nëgën itam noonu lay demee yaa koy jël délégué ko nit ngir kon ngeen xam ne bu fekkonte ne mën na faa nekkal boppam moo fay nekkal boppam kon yéen ñi nga xam ne yéen lañ ko dénk rek tàmbalee kon ci délégué délégué de bi nañ xam ne fuñ nekk ñoo fa war a nekk ndawi sëriñ bi nekk fa ay loxoom nekk fa ay tànkam sëriñ Tuubaa na koo ko nekkal ci barab war ngaa fexe ba mate ko ba ku la gis du la xeeb coow dara ba xam ne yow mi mate nga jataayu sëriñ Tuubaa ca foofa kon ñiñ dëkkal war nañu gën a sàmmonteeg ndigal yam fi joxoon daaw loolu am na lu ma ci sant dinaa ko wax di ko fàttaliwaat nee na na ci ñëpp maa si gën a farlu gën cee góorgóor képp koo xam ne gis gisati nga fa loo xam nga ne dëppootoo ki ndigalam nga fexe ba saafara ko ci na nga ko war a saafara bu la ta de village ba la nga jàllale ko ci moom ñu xam ne sëriñ bi lañ fi nekkal te ko ku nekkal sëriñ bi ci barab war ngaa góorgóorlu ci yitte taalibe yi ndax loolu la fa bàyyi bu tëwee chef de village ba mën a ba ba jàll ko itam ñu indi ko ci kim teg ci maire bi moo moom la fi sëriñ bi teg mooy saytu ni dëkk bi doxe ci wàllu adduna gi kon lu leen ci te rek ngeen yóbbu ko ba ci moom ku ci ne kilifa ga nga dëkkal ci karte nga xam ne ndawul sëriñ bi la loo xam ne bëggati nga ko wala nga xalaat ko na nga dem ba coom nga àgge ko bu tay ñoom ñëpp nag danañ ko indi ci man boo agsee ci man itam rek bu fekkee xool naa ba xam ne mën naa ko lijjanti te sëriñ bi du ko yëg fa saasa ba def ko bu dee loo xam ne kàddu sëriñ bi ndax kàddoom la yoru moo ma cee joxaat digal ngir mu gën a gaaw boobaa itam ñu def ko sëriñ bi nee na doxeen woowu yi nga xam ne moom la fekkoon ci kilifa yu yi def ko ba mu agsi ci moom loolu la fas yéene aar sàmm ko te teg ci bakkanam moo tax rek mu ngi ñaan ñëpp ñu sàmmule ko loolu nga xam ne ndono la di ndénkaanu Sëriñ Tuuba ñëpp sàmmule ko loolu bu ko defee itam jox na ma digal ne ma ñetti weer yu jotate mboolem chef de village ak délégué de quartier yi naay dajee ñoom kenn ku ci ne sab quartier lañ fa bëgg ak la nga xam ne am na fa ci jafe-jafe nga di ko dajale buñ bokkee toog nga leeral ko lépp ñu xool luñ ci mën a saafar bala ñu dajawaat loolu bokk na ci ndigal yi nga xam ne sëriñ jox na ko danañ ko sàmmoonte kon loolu mooy la jiitu ci ndigal yi la di saatit mooy li mu ne bëggatu ko fee dégg mooy di saafaraal sa loolu itam ñu ngi koy feddliwaat bu baax kon moom moo mën a dox suñ diggantee jafe-jafe àdduna kon lu nit bëggate ak nu mën a demee rek naa fexe ba mu agsi sëriñ bi te sëriñ bi kat waxoon naa ko ca màggalu Poroxaan ga mu fatta xattan lahumul abwaab la jëmm la joo xam ne ubbalut ay buntam kenn fu waaye jóge rek boo agsee dana la diglu ak koo mën a doon te dana la jox ci waxtu loo xam ne sax boo gàttam xel li fi bàyyiwoo sëriñ bi du bàyyi kon Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla def na kilifa la goo xam ne kilifa gu ma sëkkalam doon la kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel yàlla def tawféex ci moom ndax képp ku fi ma sa nekkal Serigne Touba rek tërbiyewu na ba làq sa ngiram nam daan doxee ay kilifaam itam nag ñun ñëpp nañu fas yéene doxee moom noonu te yàlla defal ko ci tawféexee ñëpp noonu la doxee moom. dadaa wax ne sama kilifa dama koy bàyyeek sama jëmm dama koy dama koy bàyyi sama jëm bàyyi ko jëmmam kon nag loolu ñun ñëpp nañu fas yéene ànd moom noonu. ngir xam ne koo ko xam ci yërmaane ji mu am ci jullit yi sax laay wax am ko ci taalibe Serigne Touba yi googu kilifa koo ko yàlla defal war ngaa gën a dalum xel te koy ñaan waxtu nekk mu yàgg fi te ànd ak wér ngir xam ne moom lépp loo xam ne war na ko rek xam na ko te dana ko def ndax ba ci yi fi mujj xew ca tàmbali ba lam ci jëkk wax ba ca mujj ga genn kàddu rek la dafa wax ne jàngoro ji mbindeef mu yàlla wàcce ci kaw suuf la waxtu wu ko jeexalee rek mu jeex nee na Sénégal tam bañ amee Serigne Touba lañu am jàmm kon moom lépp lu ngeen gis mu def ko rek wane aw yoon la ci jublu waaye moom xam na ni ku xam diggam ak boromam la ku xam diggam ak Serigne Touba lépp lu ngeen def ko mu mu ci ci saaxiir si rek daa bëgg wane aw yoon te ku jiite dangaa war a wan nit ñi fa jaar. moo tax yii weesu nag lépp lu ci xew rek def na ca la mu war a def taxaw na ca la mu war a taxawi ci lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgut bu nit ñi doon xam li muy daj ci yërmande ci diggam ak soxla nit ñi ñëpp seenu xel dana gën a dal ndax li ngeen ci xam li ngeen ci xamutu kopp kon la Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadil daa wax rek bi muy ñaanal Cheikh Serigne Saliou Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Mourtala ak soxna May daa waxoon ne seelukat xamut li xaddi di dajeg ba ba ba ndox mi agsiw ci moom kon ñun itam nañ xam ne li tax tàngoor yu agsiw ci ñun kat Cheikh Mouhamadou Mountakha tax kon nag yàlla na fi yàgg tàndag wax na ma it nag ne mi ngi jot li taalibe bi ak cant ak ngërëm ndax xam na ne moom bëgg-bëggam bépp génn Sëriñ Tuubaa loolu itam lu ko ñor la dane ma nanga ma santal ñi ma bokkal Serigne Touba ndax liggéey Serigne Touba bi kat ñoom ñëpp maase nañ ci xam ne ku ci ne la ma yéene sama bopp laa la yéene waaye ñoom ñëpp itam ànd nañoo man àndin woo xam ne kenn ku ci ne xam naa la nga yéene sa la nga ma yéene yéene woo sa bopp ñaan loolu yëg na ko mboolem ñi Serigne Touba defaroon seeni maam dégg nga lim leen seeral wax na ne foo gisal la naqare bàyyi ko ci ñoom ñooñu itam na seen maam yi àndoon ak Serigne Touba ànd nañ ko moom. ndax kenn ku ci ne addiyee ja nga daa joxe yokk nga ko kenn ku ci ne tam yéene nga ko ndam yéene goo xam ne boo soñoon ku fi jaar te am ndam rek moo ko ëpp nee na loolu lépp nag na ngeen xam ne xam na ko waaye nag Serigne Touba mi tax ngeen àndeek moom noonu mi ngi leen di ñaanal kenn ku ci ne ko yéene ak la ngay jëf ci moom yàlla ko Serigne Touba fay taalibe Serigne nag nee na ñoom moom dafa jàpp boppam ci biir taalibe ndax nee na Serigne dafa masa daje ca njaareem def bokk yi nii ci wetu ndeyjoor def taalibe yi ci wetu càmmoñ daane yéen taalibe yi na ngeen ma rus ci sama bokk yi ndax ñoom man rek la am daan yéen sama bokk yi itam na ngeen ma moytu ci sama taalibe yi ndax ñoom man rek man ñoom man rek man rek lañ ñoom man ñoom man la am ba la jël boppam jaay ak njuuralam jënd ko taalibe jàppe boppam ci biir moo tax nag yitteem jëpp mooy lu leen aar ak lu leen sàmm ak yërmaande jum dox diggéey mu ñoom nene itam mi ngi leen di sant bu baax lépp lu ngeen dégg mu wax leen ko da leen a bëgg dimbale te nit boo ko bëggee dimbale danga koy wax dëgg waaye nag nee na sant na leen bu baax gërëm na leen ndax cant gi ngërëm li mooy daaw fii lañ tam dafa woo Serigne Sidi miy jëriñam tegaat ko ci loxoom Serigne Sidi wooluwaat Serigne Modou Lo mu jër Sëriñ Amaan tegaat ko ci loxoom muy tere yi mu yëpp yëpp yëpp maase nañ ci jëfe ko ba kenn desut nee seen bopp ngeen koy defal waaye nag moom mi fi nekkal Serigne tas fàttali leen digal li ni ngeen ko jëfee sant na leen ci gërëm leen ci li ci mujjaat itam mooy barki démb bi nga xamee ne xew-xew yi dëkk yi xew ci dëkk bi xew na ndax booba itam lépp xam na ni mu demee ndax junjee la ko boppam leeral na ko ko jëru del siwaat waaye ba mu yëkkatee kàddoom kenn ku ci ne la nga doon def danga ko bàyyi wëlbatiku la la naqari woon nga def ko muy la neex nee na lool nag xam na ko kon nag mi ngi leen di ñaanal ci loolu yi nga xam ne fu ngeen déggee ndigalam xam na lu leen di jariñ la ngeen bàyyi la ngeen jàppoon Serigne Touba mi tax ngeen di jëf loolu yàlla na leen ci defal feex te xam ne sëriñ Touba kat waxoon na ne waxtu ma sante nit def day am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigal mu dëkk moom mu ne waaye bu jëfewu ndigal la nag day dellu siwaat ci man di ma xamal ne dem naa waaye awma fu ma ne kon jëfe ndigal rek am solo kon nag sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaax ñëpp ci li nga xam ne mooy bëgg-bëggam ci dëkk bi xam ne sëriñ Tuubaa kat ba muy gàddaay di sanc dëkk bi dafa am lu taxoon mu sanc dëkk bi dafa waxoon ne daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi wax na itam li tax ma sanc dëkk bi mooy jàng ak jàngale ak ak tërbiyewu nee na loolu Serigne sosiwoon dëkk bi nag waxtu wu nekk ñuy fexe ba ba nañuy fexe bay góorgóorlu ba di ko sàmmali li taxoon mu sanc mu sanc dëkk bi ba képp koo xam ne gis na ku dëkk ci dëkk bi rek bu la gisee xam ne kii kat yarub dëkk bi la te loolu Sëriñ Tuubaa fàggul nañu ko la ca nag jug jug jëm cee rek lay doon la ca dolli ko waate mooy dëkk bi dëkkub xéewal la Sëriñ Tuubaa dafa ñaanoon suñu borom ne ko ci mat la u foofu seni wa maskani salli fu jaar yi wam nu la alal ahli bi ma in jaar yi kon yàlla nañu yàlla musal ci ñi dëkk ci dëkk bi te fi nekkee lu neexul sëriñ bi nit ki nga xam ne dafa ñaanoon ne wajbuluhal xayra min al jihaati as siti wakfiha anil afati loolu war a Tuubaa lu jamono naqari naqari lu mu diis diis doo dégg doo dugg ci génn loolu pàggutefu Sëriñ Tuubaa la moo ñaanoon suñu borom bi tam xamal ko ne ko wax ne wali siwaaya yantahi day day xus zaman xat-xat xati jamono jëm na ci fu du man tayifa ocha yi tayifa xada yi kon nag la ca des nee na xam na ne Sëriñ Tuubaa dafa woote wax ne yaa ahla barri yaa ahla bahri hon joli barri bari soxaay bi mu wootee nag ñëpp ñëw bi mu wootee ñëpp a ñëw ku ne nag fa nga jóge dangaa gàddaay indaale la nga yor looloo waral kon dëkk bi bindoo ni mu bindoo waaye loolu lépp itam nañ xam ne pàggutee fu Serigne Touba boo amutoon dëkk bi saa su xëyee nit dana faatu waaye fàggu gi mu fàggu loolu te dëppoo ci boromam moo tax suñu borom may ko loolu nim la nim ñu faggule faggule kaaraange rek euh, wax ne wan fi waba wal balaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha looloo waral mbas mii fi xew ni ko sëriñ bi santaane damay wax ne butul woon nag li ko ñu jiite réew mi santaane itam Cheikh Mouhamadou Mountakha du yëkkati lu tollee deux cent millions di ko def ci loo xam ne ay nax la kon bu toon dara itam boo ko sëriñ bi santaane rek ñëpp dañu ko war a def kon waaye jàngoro ji ku dugg ci biir dëkk bi gis ni dëkk bindoo xam ni bindoo da nga xam ne sëriñ Tuubaa aar na la ci loolu kenn natt bi ko ndax boo xoolee ndakaaru euh, lim ëppee Tuubaa bariwut te boo xoolee jàngoro ji doon na fa ay yoon yoon loo xam ne moo ëpp fii kon loolu lépp itam ñoo xam ne pàgguteef sëriñ Tuubaa bu mu fàggul waa dëkk bi la kon loolu itam nañ koy sant yàlla te yamalu ala daawuda shukran li ñuy fayee Serigne Touba nag mooy jug jëm ci moom kon nag Serigne bi neen mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali itam nawet bi mi ngi dugg si te daaw xamee xam ngeen bi mu jubsee li mu santaane woon ba ñu feexa ba dëkk bi gën a set feexa ba gën a sekkar ci tooy yi yooyu yëpp itam na mu ko defe woon eh, Serigne Cheikh Abdou Latif moo ko taxaw woon daaw ren jiitam balaa nawet bi ñu góor góorgóorluwaat ci fexe ba nañ ko defoon ànd koog njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ci njëbo ci jiitale Serigne Cheikh jëmb mi nga xam ne moom la ko tegoon ci loxoom eh, buñ ci àggee lépp des na ko leeral ndax dëkk bi itam ku fi ñëw rek yaakaar la fi indi ndax Serigne Touba dafa wax ne ku fi sam xel indiwu saw xel indi la fi moo rox Serigne bi bu sañoon kenn nekk ci dëkk bi du tumuranke looloo waral itam mu ngi sant taalibe yi nga xam ne. ñuy góorlu ci biir loolu ndax lu mel ne waa Touba ca kanam xam nga ne diggante daaw ba ren jëf yu bëree bëri jëf nañ ko ci dëkk bi ci wàllu leeral dëkk bi wàllu setal dëkk bi wàllu jëmbat fi garab di ko ànd ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci dëkk bi muy maire bi di Abdou Lahad Ka kon ñoom itam sëriñ bi leen di sant di sant dem daayira yi nga xam ne quartier yëpp boo dem lii jamono ji xewal ngir bëgg fépp set Touba ñoo ci jiitu ndax ba ñuy xewal loolu yàgg na te lépp itam ci pësteef lañ koy def yaakaar payog suñ Tuubaa amu ci kenn koo xam ñi ngi la ci jox dërëm kon sëriñ bi nee na taalibe yi daal mi ngi leen sant leen gërëm di leen xamale itam lim leen ëmbal mooy yërmande lim leen àndal lim leen eh, ëmbal mooy bëgg ñëpp jariñu lim leen ëmbal mooy bëgg ñëpp seen digg sëriñ Tuubaa eh, seen pësteef waxtu wu nekk muy gën a yees di gën a sell te loolu nag sëriñ Tuubaa mel leen fàggalu ko taalibe yi kon nag ñi ngi jeexale foofu kàddu yi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di fas yéene itam ñi ko sëriñ bi santaane ñëpp gën a góor góorlu ci loolu te xam ne ndigalu sëriñ bi rek moo ñu jëriñ te sëriñ bi kat ku am ci ku am ku am yërmande ci nit ñi la ndax koo xam ne amul waxtu wu noppalu saa su xëyee ba guddi ginnaaw jaamu yàlla yi ma nga ci liggéey ba di yite nit ñi loolu nag sëriñ Tuubaa moo ko santaane woon ndax moo waxoon Euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Farid ne leen seenu jaamu yàlla li ci ëpp ginnaaw li yàlla san farataal ci yéen mooy euh, di jonjoog nit ñi di dékku seeni tartar ak seeni métti métti kon nag képp ku bokk Serigne Touba ña nga dëkkal di taalibe Serigne Touba war ngaa fexe bay xam ne li la Serigne Touba sant ci sa digge ñoom ndax waxoon na ne li ma leen loolu ci seen digge yéen mooy ak yëg ak itteewoo leneen li lépp maa koy defal sama bopp kon nag loolu na ko ñëpp xamee noonu kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.